Sallaan Sallaan. maaleykum salaam maaleykum salaam. asalaamaaleykum. maaleykum salaam asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sama mooma yónni yónni yónni yónni ريدم فوي لا اله الا الله الله اكبر قدي يبقى ساي نمت ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما أبي أبي أبي يا هاي علم لا دفع خو خو خو خو jërëjëf jërëjëf kii balaa fàtt allah akbar allah akbar jox ma sa numéro maman abi moo la yónni daggal kii bala ngaa rey doomu jàmbur ji waaw kay wax nga dëgg de baax na am am naa numéro bi boo xaaral rek taxawal jërëjëf mën naa wax li ma li ma li ma yu yu yu noppi dinaa ko woo bàyyi ma ko jërëjëf dama lay jàppale rek. jërëjëf appel bi dem na de. dafay bëggee dafay bëggee. ilaha illallah. waa cam. mi waa mi ngi nii taxaw mi ngi nii. expliqué wu ma dara de. waaw kay. kañ léegi. waa jaamu la. Tambacounda.

kon merci merci dabal booy dërëm amatuñu tookaay lu xew nee na ñu ñëw këram léegi ànd ak moom mu yóbbu ñu Tamba xew bu rëy meeting la fa am billaahi waaw nee na foofu ñu dem ndax sabar yi abal nan ko taam nee na ñu indaale sabar yi loolu daal la la ma wax kaañ dem këram loolu too waaye bookar nun koy def attaay ji